ku jóge ci Europe gi wala ci Amérique wala fenn ñëw teew ci. dëgg ñi am fulla ak am fayda ñëpp même bu ñu leen invité woon duñ ñëw comme ñoom coup d'état mais nag Moustapha. Mhm. ñi ngee fooye lu am doole loo xam ni gis nga général Moussa Fall mii nga xam ni nitam yaa ngi ko topp naan nañu ko def nii nañu ko def nii nañu ko def nii mhm. nañu ci teey gis nga réew mi ñooñu ñoo tëye réew mi te gis nga bis bu ñu dof dofloo ba naan dañuy jéem a dugg ci seen seen 18. Mm-hmm. addina bu tukki la. addina bu réer Sénégal bu jaxasoo la goo xam ni coup d'état lu masul am Sénégal dana fi parce que seen yi du ñu moroomu Bassirou Diomaye. moroomu Ousmane Sonko. nañu yamale mm-hmm. seen nit ñi teey leen xamal leen ni leen président ak état du benn Sénégal état bu dëgër la am. dëgg la. dañu teey état dañu xamul ba léegi ñoom président ak état. état Sénégal gépp a ko bokk président nag président la nañu tey gis nga sénéro yooyu noonu ñoo teye ba Sénégal sosoo ba léegi coup d'état am fi bu ñu duggee ci ñoom di jéem a laal dugg ci seen kër mhm. nañu teey man daal li ma bëgg rek mooy nun ñi nga xam ne nun ñëpp ay républicain la ñu àndu def benn bloc waaw te ñu fexe nag kër ministère yi nga xam ne ñu ngi leen di bëgg a fal ak député ak yooyu nanu fexe kenn ku si nekk noo xam fa nga nekk bu ñu falee seeni Euh, seen i magistrat ak yooyu na ñu fee xam seen i kër ni kan soxna si waxee sànq dañu am salaire nu am salaire bu kenn réew mi kenn du ko taal kenn du kenn du def nii parce que tamit ñoom li Macky Sall doon def ñoom ñoo ko doon yàq te dàq ñu nu ko ëpp ñu nu fit gën ñu nu ñeme kasu. jeex na. man foofu laa teg sama biir de. bu jaree taal nañu taal bu jëree rent nañu rent bu jëree mars nañu mars luñ soxla nañu ko def. gat sa gat sa moo koy faj. rek bu ñu taalagum nañ bàyyi li jomaay liggéey li jomaay liggéey ñu yàq ko yi Macky ko def non li Macky duñu ko laal mais déggu li ma la wax ñii dañuy def dara sax soxla ñii duñ def dara. Mhm. non mais bu sax jàngat bi am na tamit loo xam ne xam naa seet seetaanoo ko quoi war nga ko dem seetaanaat nga defal ñu si jàngat fii ak suba mooy diggante Diomaye Faye ak juge con juge constitutionnel bi. waaw. waaw boobu tamit war nga leen dem xool ñoom ñaar seen diggante après loolu nga def ci ay jàngat. parce que ñaar ñooñ daan ragal naa ne xamante nañ de. <laughs> da ngaa yàgg da <laughs> ragal naa lool de. <laughs> non mais xam président Macky Sall waaw tey moom ñun bokkoon nañ ci ñu ko gunge wax dëgg yàlla. waaye ah. ne euh, nga baal ma salaamaaleykum salaamaaleykum nga baal ma gis nga njàngat googu nga ci am man mii ko ko ci am laa dañoo miinante bu baax a baax a baax boo xoolee ñi ñuy ñoom ñaar joxante loxo xëccante mu ñuy tegante bopp ka mbëkkante ka fóona nee naa ñii am na lu diyee seen diggante dama ko seetaan direct ñoom ñaar saafonte ba ci biir pale bi noonu la ñuy joxantee loxo xëccante mu wax ak moom du yàgg mu ree mu mu muuñ kee ñu tàppante mu dem loolu am la. léegi Pape bu ma ñëwee ci yow nga yegg mais nag. waaw Erdogan continue. waaw dama ne eh, président Macky moom gunge nañ ko sànq mu dem ba këram. waaw gis nañ comme ni ko waxee rek quoi da xam ne kii nii amul lu muy ragal quoi. man nag man man man man te yaakaaroon naa sax président Macky Sall buy génn palais dañ koy monote seen wax ju bëri bëri ji ñu fi waxoon man te yaakaaroon naa ne bu génn pale dañ koy monote dugal ci oto yóbbu prise centrale wala dig ça veut dire ñoom li ñuy wax xamuñu si dara. Mhm. président Macky Sall boo ko nadee tuddee dictateur ba pare di tàccu ay président Guinée mooy ça veut dire que xamoo leen sax lu ngeen war a def ko seen seen xeex sax cohérent wul président Guinée Guinée Guinée boo koy manifester amul la coromoselle. ay fusée d'assaut la ñuy jël dinañ ko tiire ngeen di faatu léegi kooku ngay tàccu ne président Macky Sall dictateur la dañ koy yóbbu CPI kii président Guinée bi rek dèjà bi mu faloog léegi lim rayegum ci nit laa def ni deewagul Sénégal. Mhm. léegi nag ñun président yi moom wax dëgg yàlla sigil nañu quoi parce que Sénégal moom ñoom gan yi gan yi gan yi ñu invité woon boo leen ñooñu la journaliste waroon laaj. liggéey président Macky Sall lan ngeen ci xam ñu parce que ñoo ñu gis nañ dëkk bi jugee nañ fii dem jam ñaajo waaw dem dox nañ ko parce que jam ñaajo boo fay dem nga romb ay ay ay mbir yu bëri waaw xam naa ne ñoom moom dañuy gën a respecté président Macky Sall parce que euh, foofu la liggéey bi ne boo xoolee diggante dakaar ba jam ñaajo foofu la liggéey yi ne. waaw moo tax ñun moom loolu waax du waax dëgg yàlla amuñu gàcce daal. rë rëccuwuñ oh. tamit rëccuwuñu liñ ko daan votélee rëccuwuñ ko. parce que fekk na dëkk bi li fi li fi am dëkk boo xam ne mënu loon am courant dara dox fi woon presque mu ñëw defar lépp bañ na ko ba man maa ngi soo ko dig histoire politique nit ngay remplacer nit mu ne la yaa ngi yaa ngi yaa ngi jël nguur gi mais fii ak deux mois doo fay say employé président Macky Sall ne ko bañ yegg fa fay ñëpp waaw yokk salaire yëpp maa maa ngi dégg sax ñu naan yokk salaire président Macky Sall da ko def pour daaneel économie réew mi xam nga ñoom dañoo saltee wax léegi daal mooy li ma ciy wax moom man moom opposition bi jaan jël moom laa jël parce que man Moustapha boo bëggee dëgg-dëgg man ñii aw ci ñoom yaakaar wax dëgg yàlla. maa ngi dégg jaan naan ay duma leen ñaanal jarul nga ci sax ñaan ak ñàkk ñaan ñii duñ duñ duñ yóbbu fenn. duñ yóbbu fen mm-hmm. parce que ñun xool nañ leen analyser nañ leen parce que réew du ñu a koy yor. gis nga président président Erdogan. Ah. waaw waaw président waaw continuer ba jeexal. ma ne président Ablaye Wade. président Ablaye Wade dafa am mhm. benn kiiwam bu mu doon wax naan. bi ma bi ma falee président Macky Sall ci la sama liggéey commencé sortir sur terre xam nga loolu dégg ngeen ko wala déggoo leen ko. Mhm. waaw mhm. xam nga loolu. ça veut dire que njiitum réew dafa am benn génie bu nekk ci yow génie. la bâtisseur yooyu même da ngay gis même ci seen moroom yi nii da ngay gis koo xam ne nii bu ngeen àndee nii bu groupe bi amee problème moom bu ñëwee wax rek problème yëpp day laqartiku. très bien loolu dafay am da ngay gis ko yor milliard du xam nu ñu koy utiliser gis ko yor cinquante mille par weer di ci gérer këram di di njabootam di dund ci di jàngi ñëpp ñëpp kër gi yëpp di nekk ci yoon. Sénégal fii da ngay dugg ay kër yoo xam ne dañoo ñàkk mais mooy gën a ordonné sax këru ku am alal loolu mooy wane ne ça veut dire que njiitu réew du kuñ jël rek dañ ko war a fal man Sénégal rek lay gis. ñuy jël n'importe kii fal parce que sànq grand bi grand bi mi ngi koy wax nan la Diomaye Faye mënee nekk président wu Euh, président wu général mussa Fall nga xool niveau bi ko président mussa Fall rawee ça veut dañoo def benn erreur bu mag te xamuñu ko erreur bu rëy rëy rëy rëy la te dinañ ko regretter amèrement. jarul ñi ngi nekk fi naan ay ñaan bu yeboo wàccee leen journée kaamil ñii duñ dem fenn boo xoolee rek. bi président Macky Sall génnee pale ba rek pëcc xoo ba am ca pale ba rek nga xam ne ñii organisation sax mënuñu ko. ah oui ah oui ah oui. seetul lool rek seetul vidéo dama seetaan vidéo yi nga xool palais ba désordre nga fa am te noonu la ñuy dundee parce que mënoo fal président ba pare te gëmoo ko ñun Sénégal instant bi ñaari président lañ nar a am. loolu loolu tamit eh, Erdogan est-ce que ñoom mën nañ leen ci amee ci loolu est du ñi nga xam ne ñoo war a sàmm kaaraange pale bi ñoom lañ war a. xam nga am na yoo xam ne nii première fois la munoo ci dara nit ñi dañuy ñëw. day da ngay mujjee sede mooy li xew ci dëkk bi rek dëkk bi xam nga ne ni mu demee nii ba ñu naan ay jomaay président état bi dafa am yum bàyyi yu bari état des fois hmm. dafay sede loolu tamit suñuy institution war nañ ko xoolaat gën ko dëgëral ba yooyu manquement yooyu ñu koy bàyyi parce que boo xoolee Sonko dafa am protocole dafa am protocole hmm. am chef de protocole mais loolu est président am chef protocole mais benn gaayaan boo xam ne amagul benn poste bu ñu ko jox parce que Sonko moom ban ministre la amagul poste mais Sonko dafa am chef de protocole te li ngeen wax noonu naan secret d' état secret d' état mënatul am Sénégal ñun ñëpp xam nañu ne mënatul am Sénégal. parce que mais mais moom loolu ah. loolu. loolu ñun ñoo ci xeex bala muy bala bala ñu gars yi di ko installé. bu hmm. jaree génn ci mbedd yi bu jaree jàkkaarloo ñoom pour wan leen bu ñu fi bëggee def ay affaire yu ñaari président yu mel noonu loolu ñun suñu combat dañ ko war a xeex. mais bu jaree wax ci mbedd mi bu jaree. Ah? ma ne ko de booy teel a wàcc parce que gëm naa ne Diomaye Faye bii lu ko général yi wax secret dina ko wax waa ji man moom loolu moom mën naa koo waat parce que dèjà ñemewul sax waa ji ñemewul sax waa ji waaw te waa ji tamit amul grandeur. xam ñoom ñaar dañuy ah? tàqalikoo ji de. Erdogan ay foo. non xam naa li ngay wax Diomaye dañ ba mu nekk beneen nit. waaw non loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy ñaan parce que xam nga sànq dégg nga ma biir wax ma ne awma ci ñoom yaakaar fenn kese laa amee fenn kese laa xamee yaakaar tuuti Diomaye Faye ñi ko wër mu écarté leen def li la la Ablaye Wade defoon parce que bu ngeen fàttali ko Ablaye Wade ba muy doog a falu waa PDC ñoo ko wëroon te boobu ay ñoom jaañ fada ay xale lañ woon boobu ñu ngi jóg a jigéen ay université Ablaye Wade dafa mujjee woon dem PS jël fa ay kàngam dugal leen ci gouvernement am loolu moo doxal gouvernement am Diomaye Faye tamit bu bu pour pour pour pour man mii ma xawam yaakaar ci moom tuuti il faut mu dem jëli ay kàngam mais ay ñoom bi Birame Souleye Diop yi ma gis nii ay ñoom Abbas Fall yi bu dee ñoo ñoo na a nekk suñuy ministre sawaay képp ku am foo jaar boo nga dem fa uti loo leneen loo def Sénégal dinañ pasar pasaree dëkk bi yàq alalu réew mi te duñu yóbbu fenn parce que état du état du caaxaan état du ay affaire de maire yi xam nga maire sax mën nga ne Ahmed Aïdara maire bi bu liggéeyul état dina ko dimbaleeg yooyu mais état c'est le sommet te ñun kii ñu fal matul njiit loolu mooy dëgg xam nga gars yi dañuy bugg nekk bii di wiiri wiiri kii ñu fal préparé wuñ ko pour mu nekk président affaire dafa ñëw rek dal ci kawam ñun ñëpp xam nañ loolu. amul fenn fu mu amul lan lan mooy jaar jaaram amoo jaar jaar amoo dara li daloon ay gambi nii gis nga gambi ba yaay jaame doogee ñëw jël nguur gi mais di n'importe quoi la nekk di def boobu fay jógee dafoo dara loolu mooy dal ay ñoom Burkina ay Guinée yi parce que préparé wuñ leen pour nga nekk njiitum réew njiitum réew du caaxaan kii Diomaye Faye mi mën naa wax ne sax ndax est-ce que yàlla sax jox ko nguuram gii <laughs> léegi nag <laughs> waaye léegi nag sa waaye dama ne man moom aw ma yaak aw ma benn yaakaar ci ñoom. mais ñun nag léegi suñu taxawaay mooy parce que dinañ jéem a def ensemble national bi dinañ fa jéem a majorité ñii bu ñu amee majorité parlementaire ensemble mën nañ sax changer constitution du Sénégal loolu maal ko fii. Uh-huh. parce que boo gisee ni ñuy fonctionner da ngay xam ne ñii fas yéene wunoo jug ci nguur gi duñ fi def dara nag duñ nekkul seen liggéey moo leen fii tee mais répression la ñuy jéem a teg. dem voté ji ay loi yoo xam ne teg ko ci dëkk bi nga xam ne du yëngu yooyu lañ fiy jéem a def loolu na gaay yi buñ ko nangu na gaay gis nga liggéey bi na yi jugaat teel a jug. ñu xool kan la ñuy jiital élection yii di ñëw ñu fexe ba ñoom bu ñu am majorité à l'Assemblée nationale waaw loolu instant bi mooy mooy mooy liggéey bi sinon yéen ñii ñëpp nekk ci panel bi xam ngeen ni ñii nii mënuñoo yor Sénégal ñoom ñi leen voteel man am naa ay xarit yu nekk fii Sénégal mais ñoom nangootuñoo waxtaan ak man ci politique su ma su ma leen waxee waa seen waay danaan ma waaye booy nag waxtaan bi teel na nangootuñoo waxtaan ñoom nangootuñoo waxtaan a jàpp leen président Macky Sall nit ñi dañ ko rëcc bu wër a wër a mais nag lii lu mu loon ñàkk la faw faw faw mu am ok merci Moussaf jërëjëf bëggoon naa la laaj ci comportement jomaay mais baal ma jël gars yi ba ñëwaat waaw léegi li ma la wax tamit ci juge constitutionnel bi loolu dama nga setaadaat ko bu baax nga xool ko am na ñuy bind ci suuf ne yàgg nañu sama téléphone bi léegi mu fay après doomu may rek si tëppale <laughs> waaw léegi baal ma ñaanal la pap pap ma ko rek mayal sa jigéen comme téléphone bi day bëgg a fay aca demal pap dina la may du am benn problème waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu tonton Moussa nuyu naa la Erdogan moom mm-hmm. frère maa leen nuyu yéen ñëpp nuyu naa leen jaan nuyu naa la di baax rek man de li may mm-hmm. wax rek gis nga pour Ousmane Sonko moom ñu naan ay vice président suñu bakkan yi lañ ci teg suñu Ousmane Sonko jomaay fay mooy suñu président e na leer te ñoom déjà rek tey jii ñoom dañoo wane ne rek ñoom seen xol yi ñoom dafa dafa metti ñoom seen xol yi seddul parce que man musuma gis passation bu service bu am tey jomaay fay war a jël nguur gi tey ñoom ñuy estati sonko ma ne leen du ngeen ñu may jàmm ak sonko daal di ngaay mexeem yi mu sol du suñu président yéen respecté leen sénégalais yi quand sonko du suñu président faluñu ko te àdduna du yàgg ba mu nekk suñu président xanaa yenn élection amaat fi mu rey lu jomaay fay mbaamu coup d'état ko mbaamu wër di ko fenal comme ni mu ko ni mu defee woon président Macky Sall yàq daram foofu la ñuy mujj ñoom ñaar parce que Sonko du nit ku baax Sonko moom ku bëgg a gouverner ci jàmm moom da nga ko yóbbu Cap Manuel mbaa nga yóbbu ko Sébi xotaan parce que moom du wax jàmm du def jàmm du ko fekkewun fu ñu koy waxee fekkewun fu ñu koy defee te du nit ku baax te jomaay fay bu ko dégloo billaay wallaay Sonko dina ko dugal ci kàmb gis nga tey ba xoolu soxor rek la doon xoole Sonko xoolinu soxor rek nga xam ni kii dafa foogoon ne Jomaay Fay du nekk président moo taxoon mu def ko candidat waaye yàlla moo noppi jomay Fay nag bu bëggee liggéey dina xool ku mel ni président Macky Sall mii mu tàllal ko loxo ni ko dimbali ma dina xool ni teg président Macky Sall tegoon ci gouvernement am ñi am xam-xam mu jël leen xëcc leen teg leen ci wetam waaye ay Baara Ndiaye fenkat ay Dame Mbodj immature ñooñu lan lañ ñu mënal ci réew mi Ousmane Sonko mi nga xam ne nettali rek lay def ak teesante chaque jour mi ngi ci suñu panel yi di déglu chaque jour mi ngi ci TikTok bi di déglu ñun lan la ñuy wax bu xëyee muy teesante ka taaj teesante ñun nekkuñu ci loolu dañ leen a fal pour ngeen wàññi dund gi dañ leen a fal pour jeunesse bi nga xam ne da ngeen leen a dig liggéey ngeen jox leen liggéey comme yéen ko fi diggee président Macky Sall mi nga xam ne def na lu nekk ci Sénégal sax emploi des jeunes bi mu ci essayé dafa dem defar dafa dem dafa dem créer DER kon xam ngeen ni état du joxe liggéey jeunes yi nag yéen a ngi doog a dóor seen loxo ci ak ñi gëmoon ni Kounkandé